Assalamualaikum Senegal, Assalamualaikum uh, Dakar Assalamualaikum Toulebu uh, Assalamualaikum Kip ko xamni rek ci waxtu bi ñuy wax ak yow mi ngi la fekk fi ci jamm di ñaan ñi nga xamni ño nek ci prison yi suñu borom dimbali leen ñu genn ci jamm ñi nga xamni ñi ngi ci hôpital yi suñu borom yëkëti leen di leen nuyu ci nuyu bu gëna rafet di siyaar sama nit ñi nga xamni tay ñom la fekk ci fi tay nak ñu am contenté dalal ben artiste bu mag un jeune talent ki nga xamni tay Mohamed Kanouté la tuddu mais son nom d'artiste nek Moli Junior ñu ngi koy nuyu bu baax fekk ko tay fi Pikine nak au niveau du banlieue wara waxtaan ak mom si projet yu bari si activité Mimi yi def mais nak ci rab bi mi def Moli ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. gannaaw ban la moli fi ñu la fekk fii mooy fan. ah fii mooy Pikine fii mooy Pikine fii mooy sama gox fii laa yoroo fii laa màggee <clears throat> fii laa xamee lépp fii laa fii laa fii laa dundee daal maanaam waaye. fi nga defee sa jeunesse. waay waay waay waay la laa defee sama jeunesse xam nga c'est ça quoi fi laa defee lépp daal maanaam waay. du vrai nom Mohamed Kanouté. waay lan moo indi Moly Junior. Moly Junior waaw comme ni nga ko déggee rek. Molly Junior ben kii la rek ben surnom la parce que man ku xam ne ma nga tuddu Mouhamed ñi ne Modou ñu ne Mamadou ay ngi mais bon moli bi mun naa ne surnom bi benn kii la jóge si benn booy sama ben jarbat xam nga di wax sama tur noonu quoi xam nga rek wax rek ba bo wax mu moli quoi ma ah wa mais mais tur bi ça ça sonne bien à l'oreille quoi. pourquoi pas ma ma jël tur bi. def ko comme def comme nom d'artiste quoi. d'accord waaw. moo di ngay def. waaye rab laay def waaye. lan moo la dugal si rab rap waaw parce que passion moom dugal si rap passion aussi mu nekk musique bu ma neexa ah vraiment bu ma neex aussi ma yàgg ko déglu vraiment yàgg koo yàgg koo get daal vraiment mu nekk musique bu ma neex waaye. d'accord waaye doon nga ko fawee bi nga nekkee xale. Hmm, waaye daan naa ko fawee xam nga daan naa ko fawee daan déglu ay son xam nga. diko ko nonou nonou quoi mais boo demee nak ba ba màgg commencé xamé nak cela dit non pourquoi pas xam nga ma engagé wu comme niko ko gi yi rek parce que affaire yi gémmi kenn quoi c'est ça quoi. si buma déggé déggee engagement damay comprendre que ni Mori. Mhm. mi ngi tek ay projet wala mi ngi dugg ci milieu bi kañ nga débuter sa carrière hmm, waaw ma ngi débuter sama carrière en 2021. La ko en 2021 il récemment a noonu non, la débuté quoi xam rek dem doon dem ci ay petits concerts yu ndaw yu ndaw ndaw noonu quoi waaye en 2023 bi nag si laa décidé nag bon pourquoi pas xam nga ma lancer sama carrière quoi pourquoi pas ma lancer sama carrière xam nga officialiser ko gars yi xam ne kat man vraiment engagé artiste la aussi rappeur là quoi. d'accord yaa ngi si label wala yaa ngi si non sur l'instant non pour l'instant sama bopp laay laay Les top quoi sama sama bon laay li xale yi naan sa bopp rek ngay un waaye <laughs> effectivement sama d'accord d'accord Mori as nga mixtape as un projet as un album. non je mixtape album mais je d'album, ci je ok maa ci pour l'instant un projet la ben, c'est la vie. Oui, c'est la ah. vie c'est la vie bon moi mu jënee yàggul surtout récemment mais vraiment gis naa ne gars yi bëgg nañ ko gars yi apprécié nañ ko vraiment mi ngi noonu daal loolu tamit gën na pourquoi pas ma ma def tout après prochain projet ma def ko album Inch'Allah. d'accord c'est la vie ça parle de quoi. ouais c'est la vie ça parle de ma vie xam nga de ma vie aussi tamit ça parle aussi parce que comme ça tu dit artiste bi suy bind bon day day bind quoi moom ak tamit ñu koy euh, ñu koy. kii quoi entourage. voilà waaw moom ak ñu koy euh, déglu. d'accord ak tamit ñu koy seetaan quoi parce que man sama vie euh, sama jaar-jaar yow mën nga ci am benn touche boo xam te ni yow mën nga am jaar-jaar bu mel noonu. d'accord waaw ah, c'est ça quoi moo tax mu tuddee ko c'est la vie quoi waaw. gannaaw bi nga ko tegee. Mhm. ban studio nga ko enregistré ñan ñoo si jàpp. ak ñan ñoo la yombalal loolu. waaw son bi nag vraiment maa ngi nuyu waa Jégra studio ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko enregistré vraiment moo ñoo ngi yombalal ma ko waa Jégra studio di sant sama copain Zen. vraiment moom ku ma bëgg la quoi vraiment aussi tamit ku ma ku ma ku ma jox confiance la à chaque fois. dama ñëw studio sax enregistré mu woo ma ba ma ñëw xam nga ne ma defal lii defal lii defal lii xam nga. waaw da ngay dem quoi xam nga parce que li may def moom moom nëbu ko quoi nee fil na ko quoi nekk vraiment mi ngi mi ngi si gis boppam daal vraiment. ok Mori bi nga xamee ni yaa ngi continuer sa carrière yaa ngi ko débuté en 2021. mille mais yaa ngi teg sa premier projet en 2023. mille est-ce que approché nga les grands rappeurs yi nga xam ni tey ay tenor lan def nañ si musique sénégalaise du nekk est-ce que am nga approche ak ñoom. comme ñoom wala est-ce que waxtaan nga. duma lim ya yow la may limal waye est ce que am nga ay approche ak yenn rapport yu maki wala meus nga def featuring ak yenn rapport yu maki wala meus ngeen am wa waaw donc man euh, comme ni nga wax ni approchement bi ma ngi ci am na ay approchement yu ma am comme tay ku ci melni sa ben grand Santos bu ñuy wax ci dess mom artiste la aussi tamit c'est un grand c'est un grand artiste def na ay album def na ay EP vraiment yag na ci war bi kok tamit vraiment day def projet di ma wo xam nga parce que lamay def mom sentir nako xam nga neex nako xam nga vraiment grand naatu dos aussi tamit amna tamit ay jeune talent ay groupe yo xam tane ni des fois dañuy def seen production di ma wo xam nga vraiment pour bëgg ma ci bolé quoi d'accord vraiment bëgg la ci bolé waye Modou Modou bëgg bok ci projet non mo li Junior kay portant do ubi pour ñep dama ci bokk kay man képp ko mo wo ci projet ma gis ni lii nii vraiment amna ki quoi amna ben amna ben na benn am avantage bi waaw damay dem ah vraiment parce que man bon fi la koy waxee ah, samay porte ubbil nako ñepp hein ah. képp ku bëgg a liggéey ak man rek wala képp ku bëgg a engagé wu ak man rek je suis là je suis euh, je suis ouvert quoi d'accord ñu gis récemment Wally Seck teug à Pikine muy sa gox bii ñu ci Molly Junior Molly Junior mo approché wul public Pikine wala Pikine ño xamul Molly Junior lan mo xew non non du lolu lolu boobu avant kii la avant sama sama sama clip bi di génn la. d'accord waaye avant sama parce que maa ngi dugg si rap en 2021 xam nga daan dem ay concert demantu noonu rek xam nga léegi nag ku wax rap tamit wax musique bu metti ku wax rap wax musique bu metti parce que da ngay bind texte da ngay répéter da ngay parcouriser xam nga yombul quoi yombul. d'accord waaw léegi nag waaye nag ba muy def euh, concert bi boo fekkul woon sama son génn quoi. fekk woon sama son jénn moom ko defee ba moom ko defee ba pare nag si la si la sama son jénn nag d'accord moo tax mujj ma def foofu tew def prestation eh, def benn prestation hmm, d'accord eh. Eh, ñu gis ni jeune bu am talent nga macha allah parce que déglu nañ c'est la vie mhm. am nañ aperçu si loolu lan lan mën a xaar si mori yi dans le futur dans le futur lépp ah lépp xaar leen lépp xaar leen lépp xaar leen xaar leen xaar leen grand théâtre Khalil mais Mori tu abuses grand théâtre Mori un, un jeune bu débuté carrière en 2021 ñu toll 2023 mu defagul ben ben son di ma wax grand théâtre mais ah, lolo. mais da nga xam la ligue. mais nan loolu nan lañ ko Mori mais nga xam mais Mori nit ko am fit nga ah <laughs> affaire yi da nga am fit pour dem Wa mais d'accord mais, mais grand théâtre c'est un peu abusé quoi ouais non c'est ça mais Pikine laa deug. te Pikine ku ko euh, xam-xam Wa Pikine tamit ñom bëgg nañ ma ñoo ma yokk fit lu tax may def ay sacrifice xam nga dugg jënn dem studio xam nga répété def ay clip c'est parce que Pikine ñoo nekk sama ginnaaw vraiment dañ may conseillé xam nga defaa fois damay romb dox sax xam nga ay mag di ma wax naa ma noo jàppal xam nga day ñëw ñu ngi lay déglu ñu ngi sa ginnaaw loolu ma yokk fit quoi yokku ma engagement quoi ah. moo tax projet yi xam nga ak engagement yi bon maa ngi ci kawam bu baax a baax bu mu leen bàcc ñu ne Molly inshallah ñu ngi la koy ñaanal carrière bu riche moy parce que jeune bu am talaa nga té nit ku bax nga nit nak bu né bax na dañ naan ndax mbokk ya ko wax mhm. fekk nan la say mbokk gis nañ ni ngay dundé ak xalé yi ak Pikine bu ñu lay laaj moo référence dans le milieu mhm. musical parce que nit ci lu muy yëngu war na am référence kan moy référence Mori, di Youssou Ndour d'accord de sama référence là nekul ne nak day def malax rek may def rap mais dama koy dama koy roy quoi dama koy déglu aussi. d'accord yaa ngi dégg. su euh Dip. Dip Doundou Guiss. ouais Dip <laughs> mi ngi noonu Wally. Wally Balago Seck. c'est une référence ci social lu mi def. on le salue de passage. waay mhm. euh, c'est une référence. Viviane moom sama artiste Mais, mais mais mais moli yow Mawli yow artiste. musicien rappeur nga wala wala mbalax. man daal musique laay def mais parce que bu ma la laajee référence nga may wax ay Viviane ay Youssou Ndour ay nang mais je comprends pas. Ah, parce que musique laay def. musique lay def musique sa englobe tou mais kon bul wax rap parce que ne defoo rap kon. non bien sûr rap laay def. mais tey mais c'est contradictoire que li may wax nii. non si si c'est parce que ñooñu ak ak attends ak Booba Booba rappeur français Booba. donc on tamit bokk na samay référence parce que parce que ñoom Mody man d'accord ma ñu am ay référence fii si dëkk bi ay rappeurs yi ay ténor waay man naa si lim ay grand ku si mel ni xumaan waay ku si mel ni awadi ak ñeneen nit doof tey ma wax nga naan ma ay buubaa je suis pas d'accord Mody ah waaw mais bay si sa weewu tànk waaw loolu dëgg la loolu dëgg la mais yow laaj nga woon nee naa la Dip mhm. ne la Youssou Ndour ne la Wally ne la Viviane ne la Boubane pourtant fi laa njëkkee sama dëkk laa da tuddu naa dib dund gis parce que man référence man du ma ñëw rek xool nit dañ nga non sama référence non hmm. man damay xool eh, parcours am quoi d'accord effort yu mu def xam nga ak ñeme bu mu ñeme parce que quoi biz xam nga nekk na milieu bu metti quoi bu metti eh, bu metti boo ñemewul xam nga gëmoo sa bopp tegoo ay engagement rek après su yoon day xaw a metti quoi te tamit mën na mën na xaw a yéex iya. moo tax ma xool si ñoom xam ni ñaa ñii ku leen suivre xam nga topp leen di nga am fit quoi moo tax ma jël leen def leen comme référence quoi. inshallah donc Mori. ku xam vie artistique xam ni méttee. il demande des moyens ak yeneen ak yeneen. nan ngay dundee à Pikine avec ta famille. say approche en tant qu'artiste. Ah, dund comme naturellement ni rek vraiment naturellement parce que moom bon mënuñoo dund loo xam te ne nii bon nekkul su ñun quoi. vraiment comme li nga wax tamit aar tamit métti na. parce que say son yaa koy yaa koy kii maanaam yaay def say moyens bopp pour génnee say son say clip aussi yaa koy def xam nga pour promouvoir sa bopp yaa ngi dégg soo xoolee lépp lu euh, lépp loo xam te ni daf lay avancer loolu rek si milieu bi rek yow yaay dem xam nga euh, ut benn financement bi soit nga liggéey wala nga xool noo def pour def ko say projet pour say projet mën a jéem pour sénégalais yi mun ci bëgg mun ci kontaan c'est ça quoi. D'accord. que bu ñu li ngay wax ni Mori hmm, non non non non non que sama pour l'instant sandales, man ak sama staff xam nga ñooy quoi. vraiment ñooy liggéey xam nga son bu jénnee ñoo wax vraiment bi a ko defal bii clip defal bii je suis bii lii vraiment sama ak staff quoi. Hmm. Euh, ce mot pour la jeunesse Nous savons ni les nit jeunesse daf koy wax si biir son bi nga xam ni mi ngi ko def c'est la vie. Mhm. di waxtaan ak jeunesse bi ban moo ban message ngay def pour la jeunesse. pour la jeunesse li may wax rek mooy dañ gën a gëm seen bopp rek parce que àdduna moom me àdduna yombul quoi àdduna dafa metti quoi boo ci nekkee foo nga gëm sa bopp xam nga liggéey xam nga ñafe quoi bañ a topp benn influence xam nga bañ dugg si leen loo xam te nii après mën nga ko rëccu ëllëg quoi. Euh, parce que la vie est très dure quoi donc képp ku nekk jeune rek am 18 ans xam nga ba 25 ans wala ba 30 ans gëmal sa bop nga liggéey nga job ba ñu dugg ci ay détails quoi Ouais, c'est ça. d'accord mhm. bu ñu gisee ni dëkk bi yëngo mhm. jeunesse bi ñii ñi ngi dugg ci gal gi. Mhm. ñii ñi ngi def Mori préféré def musique am fii Sénégal. donc lan mooy sa sa plus grande force. li nga xam ne moo koy motiver saa yu yeewoo gis ko rek. xelam day dem ci li muy def mu gën am amour bi. waaw sama force su lenn kese la sama famille parce que dara dàqul famille quoi dara dàqul dund ak sa famille yow gis sa yaay gis sa papa vraiment loolu dafa nekk lu neex xam nga lu am importance vraiment aussi tamit tamit nekk vraiment nit ku baax xam nga di ma conseiller ci lu bëri quoi noonu bu yàqamti xam nga dafal nànk-nànk rek nga bàyyi sa bopp ak yàlla lépp loo war am na dina ñëw lépp luar war a am rek ci sànq nag mi ma koy mi ma koy mi ma koy ñaanalee naa ma bul yàqamti man maa ngi lay ñaanal à chaque fois di nga am kër di nga am oto di nga am xaalis di nga am lépp mais nag bul yàqamti quoi jël sa temps rek parce que xale nga quoi boo yàqamtee rek après mun nga aw si yoon boo vraiment. Mori bu ñu la ngay wax Mori ku bëgg yaayam la. ah waaw bien sûr mais en étant artiste. <laughs> ouais. ce début est ce que na. parents yi comprendre la ak fi jamono toll pour nga def rab au début. waaw au début de mun naa ni Pape moom gars yi d'accord woon quoi. c'est difficile Pape moom mooy loolu moom moom. yaa ngi moom ay liggéey la gën a gëm quoi ay liggéey ay jàng la gën gëm quoi vraiment moom moom moom gëmul ay affaire artistes yooyu quoi. sama dara moom nga xaw a jàppale xam nga samay projet moom si jàppale des fois ma ñëw xam nga ne ko mais jamono foofu dara waaye ma dem <laughs> ma dem tourner clip wala ma dem tourner son xam nga vraiment.

nañ xaar album ci mois de octobre wala novembre quoi album bu dus titre inshallah album bu dus titre nañ ko xaar ci mois de octobre wala novembre inshallah album bu dus titre yang ci yang ci liggéey normalement un label wala yang ci liggéey ak une eh, maison de production ba man ci liggéey ak ay label ay ya. label ay label waaw man nga ma citer label yoy bon mën na ni ñaar la bariwul wa comme ça mo mené tay

parce que ku wax album album dafa diis dafa diis dafa metti xam nga vraiment mais man ma gëm ko rek quoi ma gëm ko ma no album laay def parce que bëgguma ñëw xam nga di jéene par benn benn dama bëgg a ñëw indi sama mais jàppoo ni est-ce que teelul Mori warul def pas à ba àgg tey fi mu war a àgg mais ñu tëb rek mu def album pour yow teelul non pour man teelul pour man pour man yàgg liggéey la quoi waaw pour man yàgg liggéey la ko quoi yàgg liggéey xam nga loolu moo koy moo koy waral quoi en fait yàgg liggéey quoi. parce que man bon man en fait lu ma jënd sax bariwul man à chaque fois maa ngi bind waaye maa ngi sama biral fooy maa ngi bind maa ngi xool situation dëkk bi xam nga maa ngi ciy bind vraiment man je suis un homme bi nga xam te ne man damay bind rek quoi mais samay statut WhatsApp sax la plupart xam nga damay bind rek damay bind daal damay bind daal vraiment c'est ça. d'accord donc da ngay am inspiration. waaye à chaque fois damay am inspiration inspiration bi nan la lay dikkee Mori. inspiration bi waaw. Ah ba ngay bind te yenn texte yu riche parce que bu bu buñ gisee son c'est la vie mhm. dañuy xam ni euh, bon produit bu riche le quoi mhm. nan la lay inspiration yi ngay bind di la dikkee maa ngi wax sama benn son maa ngi naan chaque semaine ni nga jeexal 200 pages lu arrivé ni nga man xaw ma sax maa raw ni nga benn Victor Hugo ak i Baudelaire man dama garaaw doon fàllu ni nga booy nee ma ma wàññi ni nga lu may bind texte dama tàng fi firi fii bu ma kenn gëmee man kaana laa fu ma dox dem suba rek mën na Lamborghini flow lay roy man mama ni ma moo jàngal mama ni ma moo jàngal dama soxla ay millions dama soxla ay millions temps dafa cher ni ko duñ xaar flow ba si catuwee man la booy ko des ni ko ma xamul man na moo lee yaa ngi dégg donc ci biir texte bi mhm. maa ngi naan man chaque semaine mu jeexal 200 pages mais lu may arrivé sax man xaw ma vraiment lu may arrivé sax man xaw ma damay bind man daal damay bind rek damay teg aise bind wala mu am envie jël sama big feuille bind daal c'est ça quoi. d'accord Mori bu ñu déggee ni bind bi dafa bari inspiration bi dafa bari. niveau d'étude am fan la toll. niveau de am terminal. terminal nga yem. waay def nga bac. def naa bac. am nga bac. waay. d'accord après bac da nga arrêté sa jàng. waaw après bac waaye dama arrêté sama jàng lan moo tax Mori arrêté jàng. Ouais, dara parce que condition yu ci nekk moo moo xaw a métti rek quoi. parce que mënoo commu cumuler rap ak jàng. non non mënuma ko mënuma ko cumuler mënuma ko cumuler vraiment aussi tamit conditions yi dafa xaw a quoi moo tax ma arrêté benn instant xam nga di liggéey suivre sama musique xam ni li ma def nii bon su ma si defee fulla ak fayda ak benn gëm-gëm dinaa ci dem ci kaw. d'accord tu as préféré abandonner les études. pour def sa musique ouais voilà donc kon musique bi lan la la jaral jaral na ma lepp ah <laughs> jaral na ma lepp vraiment jaral na ma jaral na ma lepp hein ah. parce que vraiment suma ma ni dama bay dama def ay sacrifice quoi bay bay jang bi xam nga top musique bi lolou léegi ben ben kilo quoi ben engagement bu fort la bo xam te ni vraiment daf may jaral quoi parce que dama nan dama bay li pour def li kon dama ci war a def mën a def fulla ak fayda quoi. ils mettent les moyens aussi. waaw waaw ils mettent les moyens quoi donc sax moyens yi parfois day xaw a difficile mais dara ñu gëm ko rek xam ni day ñëw quoi. incha allah mais fii Ngalam TV la loo fi wootee dina suñu borom dina si teg loxo. waaye parce que télévision boo xam ni la. Mhm. promouvoir les jeunes moo ko tax a jóg. donc bu dee am nga ñoo bëgg a woo tey exemple pour liggéey ak ñoom. Mhm. mën nga leen a woo nga waxtaan ak ñoom. waaw donc man ñooy woo rek mooy maa ngi woo euh, waa Sénégal artiste Sénégal yëpp.

434 64 16 sama porte dans ubbil naa ko pour toutes les artistes qui képp ku bëgg a liggéey ak man rek vraiment ak tamit qui beaucoup ma bëgg inviter rek ah, je suis dispo quoi. bu ñu Mori un gentleman nek boy. baa xale yu jigéen ñi sonaloon la exemple. loolu foofu waa ah, Ben noonu quoi. non non non mais on, on va parler c'est sur Ngalam TV on parle de tout. ah waaw mais. suñu xarit lañ suñu yaay lañ. dañ leen di <laughs> comprendre rek. Eh. d'accord ñu bàyyi la nga def mot de la fin. Euh, Mori. nga tàggatoo gërëm say mbokk gërëm ñi la jàppale ba nga agsi fii. Mhm. donc euh, maa ngi gërëm sama gox d'abord sama koñ maa ngi leen di bu baax a baax baax parce que gis ngeen xam nga nu ñu génnee xam nga vraiment di mo supporter di ma jàppale xam nga di gërem aussi sama yaay xam nga di gërem sama yaay bu baaxa baax di gërem tamit sama tante bi juma yaa ngi dégg ak sama papa ak mère Fatou Diop maa leen di gërëm bu baax a baax di gërëm aussi sama waa Gallé xam nga di gërëm koñ bi daal vraiment cat ba cat di gërëm aussi waa Pikine yëpp yëpp di wax ni bon Pikine man seen doom laa vraiment donc liggéey bi ngeen ngeen jàpp si ngeen dem sama compte YouTube ngeen abonné parce que am na yeneen projet yu yoo xam te ni mi ngi ñëw te dóob na vraiment mi ngi noonu beneen bi si tamit sama staff ñi nga xam te ni tamit ñoom dañ ci jàpp bu baax a baax comme sama waajee taxaw muy Boy Da Grand Da léegi sax ma ko waxee booy léegi grand grand Da laa koy wax quoi parce que sama waay la à chaque fois daf may conseiller xam nga day taxaw sama mbir vraiment ak sama staff xam nga ku si mel ni ñoom Cheikh bu Kaana xam nga ñoom Maodo xam nga ñoom Jibi vraiment donc vraiment maa leen di gërëm bu baax a baax su ma limee damay juum di wax rek bon nañ gën a jàpp xam ne man bon du ma leen mës a euh, kiiloo du ma leen mës a waajuloo dinaa liggéey incha allah teg ay projet teg ay pas incha allah pour jëm sa kanam. merci Mori. merci ñu ngi si dalal la tey fii sa gox. oui merci yow sax yaa ñu dalal. waaye di remercier émission bu euh, talent à l'honneur ñu on ta seet si Mori Mohamed Kanouté son vrai nom euh, di leen sant bu baax di gërëm travail d'équipe bi nga xam ni ñu ngi koy def boobu ba Ngalam TV nii lay continuer di jàppale les jeunes di promouvoir jeunes képp koo xam rek yaa ngi def musique ak façon ba nga koy dinañ la fekk fi nga dëkk talal la loxo promouvoir la parce que loolu rek moo tax a jóg télé bi plus particulièrement ñi nga xam ni ñoo dëkk Pikine ñi ngi maa ngi gërëm sama benn jigéen bu ñuy wax Glam Chic boutique Glam Chic Baye Khady Kara chéri Khady Mbaye di gërëm Basirou Gueye mi nga xam ni ma nga fële sa Italiano waaye di gërëm élage mi nekk si régie bi ak sama jigéen bu ñaawul bi cameraman bu ñaawul bi kontaan naa di leen jox un autre rendez-vous dans un autre numéro talent à l'honneur merci